man euh, en, en réalité jaaxuluma parce que y a une semaine j'avais déjà fait un post en disant qu'on va vers une situation inédite parce que li ma doon gis muy séntu muy ñëw ñun am nañu jàngat euh, ma ne leen ne am na loo xam ne tey mu ngi waaj am assemblée nationale et la mise en place d'une commission parlementaire boo xam ne lu muy wund ak fi mu jëm naru la nekk jàmm pour le Sénégal parce que une semaine des élections présidentielles quand même mu am parce que ku xam commission d'enquête parlementaire nu mu doxee ak surtout dans ce contexte-là mënula am te président de la République mu àndu ci on connaît bien le fonctionnement j'étais député il y a plus d'une soixante-dix euh, enquête parlementaire yu nekk ci tableau président de l'Assemblée nationale mais pour que ñu mun ko accélérer ba mën a def commission bi ba teg ko ba jaarale ko ci yoon ba député yi voté ba ñu mobiliser tous les députés de Benno Bokk Yaakaar le PDS est dans son droit de vouloir mettre une faire une requête pour une commission d'enquête parlementaire mais que le parti au pouvoir qui est garant des institutions qui est garant de la transparence où le président de la République lui-même choisit les sept sages qui vont siéger au Conseil constitutionnel ñoom bu loolu amee ba ba l'opposition PDS demandait à ce qu'une commission d'enquête parlementaire am ñoom li ñuy njëkk a def mooy seen posture mooy demander à ce que le député soutenir loolu ba pare mën a dellu ci ginnaaw di commencer di wax dañuy seetal seen deru candidat moo tax ñu koy demander je pense que le fi lu may wax le script a été mal tourné à un moment parce que li li ñu waroon def mooy d'abord génne communiqué défendre seen candidat défendre les institutions war a mën a jublu nag di ne est-ce que day. commission et puis ñu seen deru candidat comme si leur candidat a été mis en accusation de manière formelle. oui mais man man gisuma benn papier bu ñu bind. ou ñu accuser seen candidat man li ma gis PDS wax mooy Cheikh Ndiaye Cheikh Tidiane Koulibaly de magistrat de haut fonctionnaire yu terminé seen carrière ba ñu dem fekki leen fu ñu toogaat indi leen boole leen ci benn processus mais man ba tey je n'ai vu aucun document lenn lu formel lu PDS bind ah peut-être le doyen u nous va nous éclairer sur ça wala bu ñu bind le candidat bii nii nii nii lii la def parce loolu ci exposé des motifs ak lu ñu déposé assemblée nationale on a parlé de tout on a parlé des juges des des des des des des euh, des de Cheikh Ndiaye et de Cheikh Tidiane Koulibaly mais on n'a pas parlé du candidat donc c'est à ma grande surprise bu ñu toogee di ne dañuy seetal seen deru candidat am ah, dañ xaar ñu tuumal ba indi preuve ne dañuy tuumal seen candidat mais ba tey gisaguma bokk mën naa man ma juum mais gisaguma lenn luy wund wala luy wane wala lu ñu teg ci table yi ñu ne ne candidat bi def na li preuve yaa ngi loolu moo tax man sama xel tey depuis le début et puis j'avais alerté même il a une semaine de ça schéma bi nee naa leen fii lañ jëm on on est là devant tous les Sénégalais donc le poste que j'avais fait il a un il y a moins d'une semaine mooy conséquence wu lii ñëw tey c'est-à-dire que c'était tellement visible tellement prévisible mooy lii muy lii ñuy dund tey en en termes de de tension alors que les Sénégalais s'attendaient à en fait tourner une page jublu ci leneen parce que pendant des années on parle d'élection d'élection d'élection qu'on leur laisse la liberté le choix d'aller aux élections et qu'on puisse régler des problèmes yoo xam ne mën na am ça ça arrive tout le temps des problèmes alors yow le fait que euh, wax euh, waxu commission d'enquête parlementaire tout de suite Benno Bokk Yaakaar génn communiqué euh, soutenir ko pour yow manœuvre yooyu mënul am mënul nekk bu fekkee ne euh, président bu coalition bi àndu ci le PDS est dans son droit de demander une commission d'enquête parlementaire ils ont des députés lu seen droit la mais ñun nu ñu xamee nekk député xam fonctionnement le le le président de l'Assemblée nationale maam Diop du am sañ-sañ jël décision def ko sans l'aval du président de la République ça c'est un deuxièmement on a mobilisé tous les députés de benn Bokk Yaakaar vraiment tenir cette commission d'enquête parlementaire ba pare ñoom ñëpp boo déggee c'est un c'est un code de langage c'est la même chose qu'ils ont répété kenn rek mënoon na ko wax mais dañ koo répété répété répété répété. le même discours le même discours ils l'ont répété dañu bëgg setal. dañu dafa am une préparation. voilà dafa non préparation la. amul woon leneen c'est un discours qui leen demee ne leen ne il ñu setal suñu dellu candidat mais balaa ngay setal PDS wax na waxam man ma choisir sama candidat. La première chose que je fais, je sors un communiqué pour démentir et défendre le candidat en question. Loolu, c'est là, c'est une règle de préséance. Deuxièmement, l'institution incriminée, man maa ko tànn keneen tànn ko du PDS du du ex du PRP euh, du kenn man maa ko tànn bu ma ko tànne war naa am au moins la latitude euh, et la présence d'esprit défendre le Conseil constitutionnel ba pare war a mën a dugg nag ci léegi di ne est-ce que ñun dañuy accompagner une initiative parlementaire pour éclairer la lanterne des Sénégalais nga yem foofu mais de ne pas attirer et de demander que le secrétariat exécutif national demande officiellement que les députés prêtent attention moi c'est inédit dans l'histoire politique inédit. du Sénégal alors et puis euh, je viens de recevoir une information les députés sont convoqués d'urgence demain à 16 euh, le PDS a introduit euh, euh, de loi pour un report des élections les députés sont sont kii dafa mel ni daal fan yii assemblée fast track la non c' comme benn film Casa di Papel la rek dañ ko préparé kale ko bu après on exécute ça a j' une semaine je l' dit man quand je vois les choses venir j'entends j'écoute je je regarde comment les choses fonctionnent mais c' était c' était c' était évident c' est, à dire que ku xam tuuti jàng tuuti gis lii xew nii c' est c' est. c' est trop évident c' trop évident donc man dara bettu ma ci. maintenant les députés sont là pour exécuter à un niveau boo xam ne tey l'ordre est venu et concret fii lañ jëm fii ngeen bëgg ngeen jëm ils vont exécuter